fu tollu ci euh njitu euh, réewum réewum France ni mu ñu téye. Hmm. ci walum économie ni mu ñu téye. Hmm. ci wàllum comme euh, avec l'endettement. Hmm. mais aussi ni mu ñu téye ci walum éducation aussi. waaw mais euh, keroog dañu amul won temps sax. parce que liñ doon discuter dafa bari. mais tay yaakaar naa ne mën nañu jël deux minutes rek. ñu camper débat bi benn yoon nga xam ne ñëpp dinañ comprendre lan moo lan moo xew. Mhm. ndax li xewoon moo xew ba tey. Mhm. waaw kooku bu ma jëlee le pacte colonial. Mhm. nga may ma rek ñu faram le pacte colonial dégg nga cité les onze points yi nga xam ne moom moo ñu le pacte colonial voilà. li ci njëkk. nga xam ne c'est incompréhensible mooy la dette coloniale. waaw pour le remboursement des bénéfices de la colonisation. kooku mooy bu njëkk bi deuxième point la confiscation automatique des réserves financières mhm. colonies France troisième le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays mhm. c'est-à-dire que France a un droit de préemption ci est quatre priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres euh, public. Mhm. waaw lépp loo xam marché la appel d'offre public la France est prioritaire. cinquième point le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires dans les colonies France moom rek moo am priorité jox ñu arme jaay ñu arme te former itam suñuy officiers. Euh, kooku dinañ ci dugg xam ci kanam noonu la ñu formé des centaines de traîtres yoo mm-hmm. xam ne ñu ngi toog saa yu ñu soxlaa dégg nga activer leen pour ñu jóg liggéeyal leen sixième point bi mm-hmm. le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts France am na loolu mooy sixième point bi sept l'obligation de faire du français la langue officielle du pays est la langue euh, pour l'éducation la langue officielle moi, langue itam bi nga la langue éduquer. ci la huitième point bi l'obligation d'utiliser le français CFA dans les colonies françaises d'Afrique le franc français des colonies françaises d'Afrique Tout bi loolu la changé, changer loolu la mos même buñ koy neuvième point bi l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves chaque année nous alal war bilans, def bilan mel ni société buy def état financier defar yit jébbal ko France te kooku képp ko ko deful doo am crédit dégg nga yenn ndimbal yi doo ko am yenn accès yi sax ci say fonds yi ko am dixièmement renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sans l'autorisation de la France amuñu droit am alliance militaire ak benn dëkk su amul France autorisé wuñu pour ñu def mhm. onzième l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale waaw guerre mondiale bu France la France buñ ko attaqué woon tey ñun moom la ñuy etc. waaw lii. <coughs> muy onze onze yooyu nga wax. dégg dafa tënk lépp li nga xam ne moo fi am. Mhm. soo xoolee ñi ñuy gouverner itam nañuy doxee dégg indépendance ak tey dafa mel ni ñoom ñëpp ci kaw charte yi la ñuy dox guddi ak bëccëg lii moo ko indi soo seetee point yooyu nag yëpp bi ci gën a saay-saay mooy l'utilisation du franc fa waaw mu bàyyi professeur Cheikh Omar Diagne mu dugg dans les détails xam nga xam nga balaa ngay bàyyi professeur Omar Diagne voilà euh, mais professeur man buma ma on charge yi nga teunk man vraiment man je reste sidéré dama dama dama dama dama dama dama jaaxle ci charge ah. rawati na fi nga wax né ñun dañu wara def dëkk Afrique yi dañu wara def ben rapport hein, chaque année annuel djébal ko France. Euh, parce que France moo yor suñuy politique moy déterminer suñuy politique da ngay sét Français, CFA ni nga xamné mom la tëddee franc CFA toujours may laal CFA mais euh, france CFA. daanaka euh, nañ dama nit ñuy jéggal xam nga alxuraanul karim chaque jour boo koy liir da ngay gis lu bees mais français fa chaque jour boo koy saytu gis leneen lu bees loo xam ne dalay gën a tiital gën laa yéem loo xam ne xamuloo ko woon waaw fi mu ne nee nañu école lañ jëm dégg nga ne France dootul toog ci conseil d' administration bu banque centrale ak droit de veto du loolu la ñu wax. Mais ne suñu réserve yi sax mën nañ ko jël réserve yi scandale réserve yi ñu ko xayma 500 milliards de dollars 500 milliards de dollars la France l'Afrique, Sénégal Afrique a fait. ko 500 milliards. 500 milliards musuma dégg kenn ku ko contesté wala benn économiste bu ko contesté man maa ngi koy wax fii ça fait plus de 3000 milliards de dollars Les Africains, ne africain yi la France a l'habitude de voler aux Africains Deng, chaque décennie wala qui ñu indi ben qui, ba ñuy dévaluer nga xam un franc français 50 francs. CFA la won, ñu jékki-jékki dévaluer ñu de 50%. Deng, petit dégg dévaluation bi nga xam mo moo gën a rëy bi les pays scandinaves ont tapé sur la table dañ ko médiatiser les France vous n'allez pas faire ça xam nga bi France di dem euro dañu un franc français égal un euro. Mhm. du dëgg nañ mhm. France un franc euh, euh, euh, français c'était égal à combien cent francs, CFA ba ñuy France bësati ñu dem six c'est grave. qu'est-ce que ça veut dire que suñu alal daanaka ah cinq pour suñu alal dañ ko mu ndax lañ fi amone amato ko dama dévaluer sa monnaie ba tekkeetoo lolu mhm. c'est ce que cela veut dire. voilà lañu amone bu doon ay ay ay ay ay ay ay milliers de milliards d'euros la dégg nga moom moo wàññeeku ba ñu milliards d'euros. Mhm. waaw kérok bi nga xam ci lañuy ñuy dem y a beaucoup de pays scandinaves yu tapé on sur la table biñu gissé mécanisme yi waaw France nee na mooy garantie toujours nit ñi dañuy dégg ñu nan France moy garantie le franc CFA. lan lay garantie la convertibilité illimitée pour devise mhm. Madame, qu'est-ce que ça veut dire Si bu ñu une ba ñun France moy intervenir pour jox ñu ay devise mais lolu dafa am leneen lo xamné précédé ci biir mécanisme yi. c'est une forme de colonisation. déglul hein. dafa am lu ko précédé. Mhm. xam nga nee nañu boo demee ba amatoo devise maa lay jox devise mais nag balaa loolu y a un mécanisme je parle sous le contrôle du professeur bu ñu tuddee le ratissage ratissage mooy lan mooy day banque bi banque centrale yi dañuy xool ci Afrique dëkk yi ci bokk yépp dégg nga dëkk yi bokk yépp ci ci ci kuréel yi. Mhm. kan moo ci am devise pour jël devise boobu remplacer ko moo tax France mësul utiliser mécanisme boobu kon la garantie de la France amul njëriñ dégg nga amul fen fu mu taxawee. waaw leneen li mooy la parité <clears throat> parité mooy lan wax naa ko fi keroog ma ne mooy saaga ndey bi gën a ngand ci économie. parité waaw parité fixe bi nga xam ne moom lañ ñu tegal. nga xam ne du changer mu tey un euro bu fekkee c'est égal à un dollar exemple bu ñu demoon ba un euro dégg nga bu ñu demoon ba un dollar égal cent euro nga xam ne euro dafa daanu bay xalangu ñun on va toujours payer dégg nga le prix fort de l'euro moom la ñu signé. c'est grave waaw. duñ ci génn illa yow mi dina te bu ñu duggee ci prix yi. Mhm. prix yi yokkook yooyu. d'abord d'abord d'abord xam naa ne dinañu aborder. bala bala balaa ngay dem. Euh, mais on charte yoy ñu wax bëgg parce que on charte nga mais charte yoy kan moko signé ak charte euh, suñu aussi ban responsabilité lañ ci mais responsable ci am fi euh, du française ñu ngi fi. Hmm? ñu ngi fi kon charte langue langue officielle. du français ban langue lañuy ñuy jàngee ci école yi. français du français. ban monnaie la ñuy utiliser. français du français fa. Mhm. ah ban base militaire moo fi nekk. bu France. suñu militaires yi officiers supérieurs yi fu ñuy jàng jee. France ah à travers ay mécanismes bourse ak ay subventions yu ñàkk fayda dégg nga mooy mooy prétexte yi ca lañ leen di yóbboo ñu dem waaw ah, lan moo fi nekk loo xam dégg nga ci biir charte yi loo xam ne ba tey respecté wuñ ci suñuy marché yi nañ ko jël suñu président bi mu ñëwee moom c' est l' un des meilleurs élèves de la France Afrique ana lu mu joxul France président Macky Sall waaw ba Thierno Alassane Sall problème bi mu fi am. Mhm. mooy ci livre bi ne du ma signer total ah Thierno Alassane Sall moralement moo nekkoon ci dëgg mais juridiquement nekkul ci dëgg parce que loolu na Sénégal signé waaw ndax France dafa ne même boo leen amee un meilleur prix ailleurs. ñun ñooy priorité. manam ci marché yi. marché nga ci marché yi seeni ci seeni waaw ci seeni mm-hmm. ressources ah non même bu fekkee suñu offre moo gën a bon. Mm-hmm. même suñu offre bu fekkee moo gën a bon ñun ñooy prioritaire ñun ngeen di jox waaw. beneen bi mooy suñu réserve yi ñuy wax ni Sénégal laajal tey Sénégal ah le président de la république génn léegi wax ñu. paaru réserve yu Sénégal ñaata la ci réserve yooyu nekk foofu kenn xamu ko lëndëm dafa lëndëm kurus. jërëjëf professeur parce que France moo ko yoreel boppam. dégg nga ce n'est même pas à leur disposition. Mmh. ak yeneen ak yeneen. ok jërëjëf. voilà jërëjëf vraiment ñi ñuy seetaan internautes yeeg yooyu boo leen amee laaj na ñëw mais man vraiment mmh. euh, li professeur wax ni jaaxal na ma loolu. Mmh. Euh, professeur Cheikh Omar Diagne euh, boo déggee on charte yi nga xamante ne moom la professeur Wele tudd muy dëggal na ñun dañ ñoo tënk. mu dëggal ñu aussi suñu njitu rew yi ci accord yi danaka dañu dañu dañu vendanger dañu jaay ci rew mi dañu euh, trahir sen peuple danaka mhm. waaw euh, euh, di jaajëfal d'abord Abdou Wele ci exposé bu am solo pour gën ko camper mhm. <coughs> damay wax né Sénégal dafa am man Sénégal Afrique Afrique noire wala Afrique francophone dafa am ay rapport yo ak France mhm. rapport c'est des rapports de puissance ak ku dominer un rapport dominant dominé euh, dans l'histoire euh, rapport bobu momel la maanaam France dafa momone ci momel googu sax fa laay njëkk njëkk laytaay euh, le pacte de base ñu wax le pacte de base bi xamé ba tay jii moy dox pacte boobu euh, économiste bu mag bu ñuy wax Maurice Allais prix Nobel moy seul prix Nobel France là. moy prix Nobel bi jitu en tout cas ci France moo moo si njëkk bind France dafa exiger won ci ay colonies que kenn amul droit exporter ay matières premières lu muy ci moom. ndax moo ñu moomoon. créer une zone muy AOF pour action Afrique de l'Ouest ak AOF Afrique centrale. amoo droit jaay sa matière première kenn ku lu man muy benn. soo koy jaayit bateau yu ko war a transporter ak bato yuy andi sa lépp danga am obligation jox ko ay bateau français. muy muy ñaar ñett amoo droit. transformer sa matière première sa dëkk. Hmm. dama koy jox man ma transformer ko après andir le produit fini. Hmm. muy ñett ñeenteel bi damay joxe ay garantie ak ay hmm. facilité ci suñu commerce bi maak yow pour mu am ay euh, ma abaissé euh, prix pour que lépp looy andi sama dëkk mu gën a moins cher mën koo jënd. maanaam lii mooy la partie de base bi nga xam ne à la création des blocs ñuy wax 1895 ñu créé AOF ak AF li moo nekkoon la base de cette création là accords yi nag les accords secrets. Nous avons en 1958. créer ce qu'on appelle la communauté. donc c'est les accords secrets. accords on les accords secrets yi mhm. euh, tous les les républiques parce qu'il y avait 13 républiques que France créé en 1958 avec la constitution de de Gaulle. moo créé 5 république française mu créé une communauté bi nga la France présidente présidence cette communauté il y a 12 républiques qui sont ay ay vassaux. Mhm. ci biir foofu que nous am des affaires communes. ak ay affaires yoo xam ne c'est des affaires yu ñu bàyyee dëkk yi affaire commune nag mooy affaire yoo xam ne France du ko bàyyeeg dëkk yooyu ñu koy gérer seen bopp bul fàtte ni Sénégal ñu ko créé en 1958 la république du Sénégal. Mhm. république du république Mali république yëpp ñu ko créé en 1958. Mhm. donc euh, ba ñuy créé Sénégal ba ñuy créé république yooyu affaire communes yooyu la monnaie en faisait partie mooy 11 yu mu tudd les affaires stratégiques les ressources les ressources euh, naturelles la diplomatie mhm. l' armée l' enseignement supérieur. la marine il y' a beaucoup de sujets yoo xam ne France dafa ne du ko bàyyi république yu république yi di ko gérer seen bopp moom moo koy gérer ak ñoom donc dëkk yëpp signé d'accord. accord ko. donc après 1958 le processus d'indépendance a été obligatoire ndax avons monde bi si moom moo tëddee France nous woon kon des di moom dëkk yi France bëggul woon bàyyi dëkk donc euh, li mo andi aujourd'hui accord secret yoy dëkk yepp ko signé mu ngi daw batay ma ngi wax daw dawat jéeg ma ngi wax nan am na africain xam ñu ngi fay batay sen sen sen dette la dette coloniale. dette coloniale ñu koy fay ba léegi. donc pour dire que euh mbir mu doy war na waye pour pour revenir euh man fu may fu may ñëwaatee par rapport ak li ab wax bala may jallé kaddu bi damay wax ne rapport France ak Afrique euh mass rapport yu yu yu yu métti liir la. Mhm. ndax euh, dafa am benn dimension bi xamé dimension de domination mooy dimension bi xamé avant 1960. Mhm. donc euh, depuis 1895 1960 dañ ñu noot moom ñu li def lu leen neex sans benn la leen ci. Mhm. de 1960 à 1973 euh moy